alors comme le dit El Hadj Malick namoon nañu rubrique bi destination Sénégal tey ñuy dem à 120 kilomètres de Dakar Fadiouth lilo au coquillage lañ ko gën a xamee digganteem ak Joal daanaka benn pont pont wu bant moom moo leen séparé bu ñu inauguré en 2006 ñu bëri nag surtout touristes yi di bëgg di dem foofu noonu Fadiouth ngir visiter et puis dialogue islamo-chrétien bi boo demee foofu sax nag daanaka fa nga koy gën a sentir ak cimetière bi nga xam ne daanaka jullit ak catholique ñoom ñooy dend Abdoulaye Diop ak Diafara Ba dem nañu Fadiouth ngir destination Sénégal reportage. Joal Fadiouth la ñuy wax ñu bari jàpp nañ ni sax euh, benn la waaye euh, boo ñëwee ci Joal ba fii nii rek fi na nag euh, Joal yam léegi nag dangay ngay war a dugg ci fi nga xam ne mooy île de coquillage. Euh, Fajut li nga xam ne nii nii moom moo nekk ci côté bi yëpp moom moo nekk Fajut nga xam ni pont bi moom moo leen relier Fajut nag moom lañ bëgg a découvrir tey ndax yi fi nekk bëri na lool pont bi nga xam ni pont bi ci dénk la nekk waaye tamit dex gi nga xam ni bu fekkee dafa dem ba bëccëg gi eh, kawe dafay nekk eh, ndox bi yëpp dafay dafay seey am na tamit ay cimetières yi nga xam ni ay chrétiens yi ak musulmans yi ñoom ñoo ko bokk ak yeneen bu ñu waxee ci wàllu coquillage yi boo demee ci yeneen dëkk yi da ngay gis suuf waaye fii nag coquillage la ay xor nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi tey moom lañ bëgg ànd ak yéen ak Jaafara ñu découvrir gëstu euh, jéem a xam rek li nga xam ne moom mooy faajut nan la mel ci ñu dem Jaafara kon ñi ngi fii ci benn quartier yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk fii nag mooy Mbine euh, Mbine Fassar euh, mi nga xam ne Notre Dame de Lourdes fi la nekk ñu nekk fi ak délégué de quartier bi euh, monsieur Diokh fàttali ñu tur bi. je m'appelle Dominique Diokh. Dominique Diokh. Mhm. ñu nekk ci quartier bi bokk ci quartier yi nga xam ni moom mooy Fadiout mais dañu gis coquillage yi dafa bëri fii ñu bëggoon a xam lu waral loolu parce que day mel ni fu ñuy dox rek ay xor yi daal la ñuy gis. Euh, lu waral loolu c'est que ce sont nos ancêtres qui ramassaient les coques au niveau de la lagune qui cueillaient les huîtres qui mangeaient l'intérieur et déposaient les huîtres sur ces endroits-là c'est ce qui a valu toutes ces îles souvent ils disent l'île au coquillage mais normalement on devrait dire l'archipel au coquillage parce qu'il y a plusieurs îles fii nii ay îles yu bëri ñoom ñoo fi nekk maanaam ay bërëb yu bëri yi nga xam ni ndox moom moo leen wër waaw ay ilo ilo la y au moins euh, lu mot fanweer ah île yu nekk fii te suñu maam yi ñoo ko defar monsieur jox dañu gis que ni euh, fii nii li nga xam ne moom moo tàqale Joal ak Fadiouth moom mooy pon bi euh, ñu buggoon a xam gis nañ fi ñaari pont mu nekk dénk kan nañ ko tabax ak pon yi lu tax mu nekk dénk Euh, pont yi ñu ngi leen di ñu ngi leen defar en 2004. lu mu nekk bant moom kenn mësu cee tiit wala mësul poser sécurité ak non problème euh, sécurité amu ci. bii mu ngi def 522 mètres. bi ñu taxaw fii bii dem ci cimetière ba mu ngi def à peine 275 à 300 mètres voilà donc bii pour relier Fadiouth ak Joal la donc euh, piéton yi villageois yi touriste yi élèves yi ci dëkk bi parce que ci biir dëkk bi benn ma école maternelle rek moo fi nekk yeneen école yi ñu ngi soo wàccee pont bi. waa gis ngeen ko fii tamit am na benn traversée ndax gis ngeen ko lagune bi fii yëpp ndox la euh, touristes yi nga xam ne ñoo fi ñëw aussi dañuy dugg ci biir euh, profiter rek ci li nga xam ne moom mooy ndox bi kon dañuy ànd ak. Euh, suñu dawalkat bi tur bi naka la. Augustin Etienne Augustin Etienne. Augustin. waaw kon ñu dem ah? waaw amul problème dese na ci yéen yéen laa xaar pour ngeen dugg ci gaal mi ma won leen dëkk bi nu mu kii bi lagin bi nu mu nu mu mel quoi waaw. ayca jaafara ñu dem. xam naa ak euh, monsieur Pierre ñii fii euh, en face des des cimetières nga xam ni euh, comme ni ñu ko xamee xëy na dañ doon faral gis ni jullit ñi fii chrétien yi fii waaye dañu gis ni fii ñoom ñëpp ñoo bokk ci benn cimetière. voilà merci beaucoup ci laajte bi fii sax bu njëkk ba nit ci dañ doon dund nii rek gëm yàlla mais ils n'étaient pas islamisés ni le christianisme n'était pas encore arrivé ñëwul woon gëmoon nañu yàlla mais. daawulu daawuñu woon di dem ci jàkka ja daawuñu woon di dem ci jàngu ba puisque loolu egsi ñu woon fii mais gëmoon nañu yàlla alors comme ñoom ñoo dekkoon nekkoon ay ay kenn benn benn la ñu formé woon ñu def benn cimetière boo xam ne amul distinction entre catholique ak euh, julit kon ñu ngi ñu ngi ci frontière bi comme ni nga ko waxee ci li tàqale euh, armeer yi jullit yi ak yu chrétien yi. voilà ñu ngi ci armeer yi jot ak catholique yi boo gisee nag catholique yi gën a bari lu ñu occupé upay bësu sëriñ yi c'est parce que catholique yi nekk fii ñoo gën a bari jot bu baax a baax loolu moo indi lii. dañoo gis fii nii benn kii nekk nii benn croix kii nekk fii tableau pour jullit cela veut dire que amul benn distinction comme ñu ko waxee ñoom yëpp benn lañu. bu ñuy suur kii. jullit ak catholique yëpp ñoo ñëwoon bu ñu suur kii. jullit ak catholique yëpp ñoo ñëwoon. merci beaucoup Abdoulaye Diop ak euh, Diafara Ba El euh, Hadj Malick euh, magnifique reportage foofu ci Joal Fadiouth yow miin nga ko bu baax a baax de <laughs> n'est-ce pas. Ah, dëkk bu ma neex la dëkk bu ma miin la. ma am fa aussi ay hmm. mbokk rawatina ci sama côté soxna hmm. donc sama ay goro rek ñoom ñoo fa nekk waa kër maam Ndebane ñi ngi leen di nuyu bu baax donc dëkk la bu nga xam ne vraiment île bu ndaw la hmm. mais c'est très beau l'île au coquillage boo demee amul suuf lépp coquillage la mais boo tollee ci boppu pont bi li lay njëkk a impressionné mooy da ngay gis minaret bi gis itamit euh, église bi. Mhm. ñoom ñaar ñu def nii. nga xool à à à ta gis sëg yi nga xam ne. Mhm. Euh, fa la ñuy denc jullit yi fa la ñuy denc catholique yi. donc loolu woon ne Fadiouth dafay symboliser. Hmm. loolu nga xam ne tey moom mooy le dialogue islamo-chrétien hmm. parce que kër amul kër goo fay dem te amu fa benn parti bi nekk ay jullit hmm. benn parti bi nekk ay chrétien donc chrétiens yi ñoom ñoo fa gën a dominer mais mu nekk également dëkk bu nga xam ne euh, ci taarix xam nañu le président poète Léopold Sédar Senghor borom Joal je me rappelle Je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas, mm. les signares aux yeux réels comme un clair de lune sur la grêle. Je me rappelle les faces du couchant où Commando Fène voulait faire tailler son manteau royal. Ah, c'est très beau. Ah, euh, nga nga dem fa également. xel yëpp dafay dem ci également Marthe Ndiaye qui était une lionne. Mm. qui était la reine du basket en 1987. Mm. xel yi également dafay dem. ci le général François Ndiaye. Euh, chef d'état-major général de l'armée xel yi dafay dem ci Mohamed Ndiaye Robert le grand champion. xel hmm. yi dafay dem ci Manga 2 roi des arènes. xel yi dafay dem ci Yaxya Diop Yekini hmm. roi des arènes xel yi dafay dem ci procureur François François Diouf euh, qui nous a également donc Joal. Daniel Diouf donc voilà. donc Daniel yow kay Alaaji Malick mënoon nga ànd ak Abdoulaye Diop. ci destination Sénégal la bu nga xam ne <laughs> di ay séeréer di mm. ay jàmbaar di ay jàngkat. c'est un euh, magnifique site donc vraiment c'est c'est ça ah, mm, effectivement lamb mm, donc ni ko Malick waxee. c'est dommage que affaire bi dafa xaw a juste. dinañ ci waxaat incha allah bu ñu ñëwaatee il faut ñu taxawaat ci parce que malheureusement il faut ñu dem RFM heureusement d'ailleurs tey jii ñuy dalal Aliou Nguy Ndiaye moom coalition Ali Nguy bu 8 jotee incha allah ñu dellu si ci ñaareelu pàcc bi à tout à l'heure boo